Macky Sall daal moo dul bokk Ousmane Sonko fi may wax ak yow nii dafay bokk parce que amawul benn condamnation définitive ñoom ñooy def préparation psychologique pour waajal sénégalais yi ñu teel a nangu ni Sonko du bokk ñoom ñoo koy def de. Hmm. waaw waaw ah yow contumace boo xamante ne waa yaa ngi te fii de dëgër góor gi nga ne contumace. Hmm. te yéen yéen ko jëli fële dans le bundu Koungheul yéen a yóbbu indi fii nangu ay am. génne ay cest li ñu boole defandoo ko ci boppam te mu safaanoog yoon moo bari. Hmm. non mais attendez. yow condiment boo xam ni xam xam nga fi mu ne. yéen maanaam yéen ñi nga xamante ne tey bu ngeen ko doon jëli bu mandat amoon d'amener wala je ne sais pas de perquisition avec une base légale et cetera yéen yéen a ko dem yéen yéen ko jëli fee dans le Bundu oriental dans le Koungheul su ma juumul yéen indi fii ah après léegi ngeen ne contumace contumace la. de toute façon moom dossier bi propre bu dee mën na def appel te yaakaar naa ko dañuy juyaat affaire bi si OS se livre dañuy defaat affaire bi si sa constitue prisonnier dañuy dooraat affaire bi bee jeexagul dossier propre daa jeexagul jeexagul ba fii may wax ak yow ni tey la samedi suba suba suba suba la neuf bu élection amoon Sonko day bokk de hmm. ah waaw mais amuñu condamnation définitive di mais mënuñu ko baral nga yaakaar fii non tam man xam nga lan laa gën gëm sax gars dañu bëgg waxtaan ñaari parti kan? ñaari parti yëpp bëgg a waxtaan fi mu nekk nii mooy Ousmane Sonko ñoom Macky Sall ñoom ñaar ñëpp fi mu nekk nii waxtaan moo leen jig non dans France 24 y a une partie bu à travers euh, France 24 y a une partie où OS parle d'oubli de pardon ça c'est une stratégie d'effacement hmm. donc ressort yi nañ dugg foofu jéem a ñaari parti yi ba pare kenn ku ci nekk bul déglu len nay sa ci sa état major naan la bul dem ak yaa ngi dégg. ndax mën na ñàkk. ah ndax na ñàkk ku nekk bañ a déglu say say. non mais mënta ñàkk mais yow yow par exemple yow yaay xam fan la la Sénégal yóbbu fan la la Sénégal fekkoon ak aussi tamit boo fi nekkatul yàlla nañ yax mais Sénégal dafay continuer di am hmm. mais loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg de. léegi kon Macky Sall daal moo dul bokk. mais Ousmane bokk. mais amul condamnation définitive lan condamnation depuis par exemple au moins deux ans ni def ben genre bashing comme quoi son groupe, son groupe, pour préparer nit ñi loolu yow dama lay laaj OS bu élection la e région la diaspora yow xam nga ni qui mel xam nga ko baax nan <laughs> ah non mais nan la voté man kay dama la koy laaj rek. sa buñu dugg ci que gis nga élection sérieux manam à la fois fête la mais aussi tamit pratique le bout manam dafa sérieux élection. man li ma ay résultats yu bon gannaaw élection motax seen ba hmm, résultats yu bon. yu bon ñu contesté nit ñi d'accorduñ kon li mën na influencer ci résultat mais yow xoolal guiné Conakry guiné Conakry lan la troisième mandat waa am score soviétique ñu coup d'état ko ba tey y a un désordre constitutionnel là-bas Mali 2012 le capitaine Amadou Aya Sanogo def coup d'état yaa ngi dégg te man am na benn kilifa gu mag bu ma ne carrément c'est un coup d'état Euh, euh, ni ñu koy waxatee sax hmm. c'était un mal nécessaire c'était un coup d'état d'un mal nécessaire parce que nee na ma bu deful woon coup d'état kon amaana euh, jihaad si dugg nañ Bamako hmm. ko Sénégal hmm. soriwul mais boobu ba tey mënuñu fexe ba teguwaat presque sur les voies constitutionnelles à part voilà la parenthèse IBK te IBK gis nga ni mu fa jógee. gis nga IBK ni fa jógee donc ñun am ëpp naa sàggane Macky moom mënul bokk mais keneen koo xamante ne bii sax ñàkk bokk mën na indi instabilité ci réew mi ni ñu defee ba war a dugal ñaari cas nañ def dialogue dugal euh, dëggal boole ci ñëpp ndax Sonko génnagul bañ koy dugal.